وإن الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله مبقي سرين بنا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله يجي دين ñu ngi dund tey. na ñu ngi dund tey. dund boo xam ne dund nattu yàlla la. dund boo xam ne dund nattu yàlla la. ci anam ak jalaalam. ci anam ak jalaalam. waaye Cheikh Ibrahima mii ñuy tàggoo tey. waaye Cheikh Ibrahima mii ñuy tàggoo tey. jox nañu. jox nañu. dara joo xam ne moom la ñuy muñee. daraja joo xam ne moom. caabi joo xam ne. caabi moom la ñuy buntu muñ. yàlla. di nangul yàlla. dellu ci yàlla. dellu ci yàlla. bim ñu bàyyee. bim ñu bàyyee. lum ñu bàyyee. lum ñu bàyyee. mu ñu bàyyee lu tubaab di wax verticalité. mu ngi ñu bàyyee lu tubaab di wax verticalité. lu tubaab di wax horizontal. tubaab di wax horizontal. loolu mooy lan. loolu mooy lan. yàlla wax nañu ci alquran. waaxidatan mukum nee na xeet yi yëpp nee na xeet yi yëpp benn xeet la benn xeet la man maay seen borom man yàlla maay seen borom verticalité ngoog verticalité ngoog loolu lay firi faa bu duuni faa bu duuni jaamu leen ma jaamu leen ma horizontalité ngoog horizontal ngoo mu ngoog loolu la ñu bàyyee ci ñaari baat yi mu ñu wax loolu la ñu bàyyee ci ñaari baat yi mu ñu wax seede leen ne jullit laa seede leen ne jullit laa yàlla laa gëm yàlla laa gëm yàlla laa nangul yàlla laa nangul loolu jeex na loolu jeex na mat na dara lu fay yokku nekkatu fa mat na sëkk dara lu fay yokku nekkatu fa mu ne man taalibe baay laa wane ne man ne seedeel leen ma ne taalibe baay laa jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla ngoog. jaamu yàlla buy liggéeyal yàlla ngoog. ak liggéeyal. ak liggéeyam. loo xam ne dooleeku doomu aadama daf ciy bàyyeekoo. loo xam ne dooleeku doomu aadama daf ciy bàyyeekoo. ndax boo gëmee yàlla nangul ko. ndax boo gëmee yàlla nangul ko. yàlla daf la jaamu yàlla daf ne la jaamu ma. googu nga koy jaamu nag. jaamu googu ngay jaamu yàlla la. lépp looy def ci àddina jëmale ko ci yàlla rek jaamu yàlla la. def ci àddina jëmale ko ci yàlla rek jaamu yàlla la. di ci sàkku ngërmande yàlla di ci sàkku ngërmande yàlla loolu boo ko defee rek yaa ci jaamu yàlla loolu boo ko defee rek yàng ci jaamu yàlla loolu la baraam bàyyee ko bàyyee loolu la ñu baraam bàyyee jaamu yàlla nag jaamu yàlla nag yàlla sartal nañu ci yàlla sartal nañu ci ne na nekk jaamu goo xam ne ne na nekk jaamu goo xam ne bu sell la ngir man bu sell la ngir man ku lay xiir ci yàlla ku lay xiir ci yàlla mu lay jàngal sell mu ngi lay jàngal sell. mu ngi lay jàngal dégg mu ngi lay jàngal euh, dëggu. mu ngi lay jàngal dëggu. te loolu yëpp. te loolu yëpp. ñaari baat yi ñu baram bàyyee. ñaari baat yi ñu baram bàyyee. ëmb na loolu yëpp. ëmb na loolu lépp. ñaan yàlla. ñaan yàlla. yal nañu yàlla may dégg xam. yal nañu yàlla may dégg xam yaa rabbi. buñ déggee xam yal nañu yàlla may kattan buñ toppee. buñ déggee xam yal nañu yàlla may kattan bu ñu toppee. bu ñu toppee yal nañu yàlla may sellal ca topp googa. bu ñu toppee yal nañu yàlla may sellal ca topp googa. Cheikh Ibrahima a ngi nii di dem. Cheikh Ibrahima a ngi nii di dem. ku ne xam ne silsilaam fu mu bàyyeekoo. ku ne na. silsilaam. silsilaam fi mu bàyyeekoo. doomu Serigne Mbaye. doomi maam Serigne Mbaye. doomu Alaaji Abdoulaye. doomi maam Alaaji Abdoulaye radiyallahu anhu. taalibe Cheikh Ahmad Tidiane. di taalibe Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. am ay njiit ci biir ci biir tariqa bi. ñu ñu ñu jiite ñu. ñu jiite ñu. Cheikh Ibrahima ci la bokk. Cheikh Ibrahima ci la bokk. Cheikh Serigne Mbaye ci la bokk. Cheikh Mame Serigne Mbaye ci la bokk. bàyyee ñu ay bàyyee goo xam ne. bàyyee ñu ay bàyyee goo xam ne. ku nekk ci ñun kontaan na ci. ku nekk ci ñun kontaan na ci. ku nekk ci ñun bëgg nga mu tasaaroo. ku nekk ci ñun bëgg na mu tasaaroo. ndax dara nekkul ci lu dul ngëneelu doomu aadama. dara nekkul ci lu dul ngëneelu doomu aadama. ndax lan. ndax lan doomu aadama bàyyee nga ko yàlla rek parce que yàllaa ko moom doomu aadama bàyyee nga ko yàlla rek ndaxte yàllaa ko moom amoo dara ci moom amoo dara ci moom lu dul lu koy xiir lu dul lu koy xiir lu dëggal ci moom lu dëggal ci moom lu dëggal ci moom ne man jaami yàlla la ne man jaami yàlla la ñu ànd ci loolu ñu ànd ci loolu ñu ànd ci loolu dimbalante ci dimbalante ci alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jumaa ji jumaa ji ji. seede la ci loolu. seede la ci loolu. école bële. école bële. seede la ci loolu. rajo bii. rajo bii. seede la ci loolu. ci loolu. doomam yi. doomam yi. seede lañ ci loolu. seede lañ ci yi. rakkam yi. seede lañ ci loolu. ndax koo ci gis rek. ndax ko ci gis rek. njiit la imaam la. njiit la imaam la. borom xam-xam la. borom xam-xam la. boo xam ne. boo xam mën naa leeral. mën naa leeral. mën naa yokk nit ñi dooleeku. mën naa yokk nit ñi dooleeku. bon liggéey boobu mu waxoon ne man jullit la taalibe baay laa. bon liggéey boobu mu waxoon ne man jullit laa taalibe baay laa. loolu doy na dooleeku. loolu doy na dooleeku. loolu doy na leçon. loolu doy na leçon. yoo xam ne ñun ñëpp mën nañ cee jàng. boo xam ne ñun ñëpp mën nañ cee jàng. ba moom. ba taseeg moom te duñu yàq dara gannaawam te duñu yàq dara gannaawam yal nañu yàlla dimbale ba buñu yàq dara gannaawam yal nañu yàlla dimbale ba buñu yàq dara gannaawam yal nañu yàlla dimbale yal nañu yàlla dimbale waxuma ñu bañ a yàq rek waxuma ñu bañ a yàq rek waaye yal nañu yàlla dimbale ñu dolli yal nañu yàlla dimbale ñu dolli ndax dolleeku bi yiw rek la ndax ndolleeku bi yiw rek la yiw la jëm ci doomu aadama yëpp yiw la jëm ci doomu aadama yëpp yiw la itam yiw la itam jëm ci ne jëm ci ne lii mooy sama dono kii mooy sama lii mooy sama ndono. lii mooy sama ndono. jëriñ gëm yàlla. jëriñ gëm yàlla. gëm yàlla googu nga delloo ko liggéeyal jaamu yàlla yi. gëm yàlla googu delloo yàlla yi. leen ci yàlla. delloo leen ci yàlla. lépp luy misaalal nit ci xolam. lépp luy misaalal nit ci xolam. lu nangoo yàlla. buñ nangoo yàlla lum nangoo yàlla lum nangoo yàlla lum gëmee yàlla lum gëmee yàlla yooyu yëpp bàyyi nga ci ay misaal yoo xam ne yooyu yëpp bàyyi nga ci ay misaal yoo xam ne boo ko gisee boo ko gisee danga xam ne kii doon tabax di nga xam ne kii doon tabax fa mu teg fa teg tabaxam fa mu teg tabaxam fondation bu dëgër la fondation bu fondation boo xam ne fondation boo xam ne ay maamam ak i jeexal nañ ci seen dund ay maamam ak i jeexal nañ ci seen dund nga nangu loolu gëm ko loolu gëm ko. jeexal ci sa dund. jeexal ci sa dund. di di jihaad fi sabilillah. di jihaad ci ba sa aaxir nafas ba ci sa dernier nokki. ba ci sa dernier nokki. keroog ba muy jógee ci mbaar ma. ku ne xam na ne keroog daf doon tàggoo pour pour bés bi. sëriñ bi la ci la ne keroog daf doon tàggoo pour bés bi. ñëpp itam xamoon nañ ko. ñëpp itam xamoon nañ ko. waaye nag. waaye nag. loolu dars la yoo xam ne. loolu dars la yoo xam ne. ñun lay jëriñ. ñun lay jëriñ. ne. ne. sa digganteek yàlla. sa digganteeg yàlla. liggéeyal yàlla ci jaamam yi. amut frontière. amut frontière. demal rek ba bés bi tàggale ak moom. demal rek. ba bés bi tàggale moom. te loolu ci la nekkoon. te loolu ci la nekkoon. ci la tàggoog nit ñi. ndax jotaay boobu ñu fekkee keroog ñun ñëpp. ndax jotaay boobu ñu fekkee keroog ñun ñëpp. boo gisee keroog sa yaram dina daw. boo gisee keroog sa yaram dina daw. ndax da nga xam ne kii toog. bi nga ne kii toog. jàmbaara ko fi toogloo. jàmbaara ko fi toogloo. kii toog. kii toog. gëm moo ko fi toogloo. gëm moo kii toog. bëgg yàlla moo ko fi toogloo. bëgg kii toog. gëm na ne. gëm na ne liggéey. liggéey ba ci sa dernier souffle. ba ci sa dernier nokki. ngir yàlla. ngir yàlla. moo ko fi taxoon a toog. moo ko fi taxoon toog. bon ay leçon la ñun ñëpp. kon loolu ay leçon la ñun ñëpp. ay ay ay njàngat la. ay njàngat la. ay jëf la itam. ay jëf la itam. ci gannaawam. ci gannaawam. emut emut jàngal nit ñi diine rek. emut jàngal nit ñi diine rek. lu nekk dugal na ci loxoom. lu nekk dugal na ci loxoom. daan jubbanti gouvernement bi. da daan jubbanti gouvernement bi. di bindanteeg ñoom di leen wax ne nii la. di bindanteeg ñoom di leen wax ne nii la. di leen tëralal ay plan wu liggéey. di leen tëralal ay plan yu liggéey. loolu yëpp. loolu yëpp. ñoom def nañ wala defuñ. ñoom def waaye moom li mu war a def def na ko. waaye moom li mu def def na ko. emut ci loolu. emut ci loolu. moog nit ñi ñëpp dañuy ànd. moog nit ñi ñëpp dañuy ànd. di dem ci tool yi. di bay. di bay ndax àddina dafa soppeeku. ndax àddina dafa soppeeku. nit dafa war am. nit dafa war léegi di tukkee sareet ak mbaam ak i fas. bëggatuñ mbaam ak i fas. waaye dañoo bëgg di tukkee ay oto. waaye dañoo bëgg di duggee ak téléphone. dañoo bëgg di jokkalante ak téléphone. loolu yëpp liggéey moo ciy àggale nit. loolu yëpp liggéey moo ciy àggale nit. moo koy may nit. liggéey moo koy may nit. gis nañ ko liggéeykat la woon. gis nañ ko liggéeykat la woon. mu ci tool yi. mu ci tool yi. jàngal nit ñi tool. di jàngal nit ñi tool. addina soppeeku soppeeku soppi leen seen dund. addina soppeeku la soppi leen seen dund. liggéey leen. ngir am dara. ngir am dara. te yàlla may nañu ay liggéeyukaay. te yàlla may nañu ay liggéeyukaay. may nañu suuf may nañu ndox. may nañu suuf may nañu ndox. may nañu ay xale yu góor ay xale yu góor yu dëgër. yoo xam ne luñ bëgg am rek mën nañ koo am. bëgg am rek mën nañ koo am. ci la nekkoon ak nit ñi. ci la nekkoon ak nit ñi. di ko jàngale. di ko jàngale. ko jàngale. am na ci résultat. am na ci résultat. waaye bëgg nañu résultat yooyu mu yokku. waaye bëggoon na résultat yooyu mu yokku. ñu ñu yokku ko. ñu yokku ko. Cheikh Mahi Khalifa. Cheikh Khalifa. ak rakam. ak ku ne gis na ay soldaar yoo xam ne. pare nañ. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. doomu aadama daf ciy dooleekoo. doomu aadama daf ciy dooleekoo. ci yàlla. ngir yàlla. ci yàlla. ak addinaam. ak addinaam. engagé nañ ko. engagé nañ ko. ndax lan. ndax lan. yàlla dimbale na leen. yàlla dimbale la leen. may leen ay doom yoo xam ne. may leen ay doom yoo xam ne. ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ. ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ. Cheikh Ibrahima a ngi euh, nga xam ne xaw ma leen bu baax. ak ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ. boo leen dégloo di nga xam ne ay borom xam-xam lañ. boo leen ñoom. dina dolli. dina dolli. leer. leer dina dolli yombal. dina dolli yombal. yal na yàlla may ñu loolu ñun ñëpp. yal na ñu loolu may sàmm suñuy cosaan. yal nañu yàlla may sàmm suñuy cosaan. yal na yàlla may ñu. yal na yàlla may ñu. ñu dimbale eh, ñu. dimbale ñu. Alaaji Abdoulaye ngi nii. Alaaji Abdoulaye ngi nii. Cheikh Ibrahima ngi nii. ngi nii. Baye Khalifa ngi nii. Baye Khalifa ngi nii. Eh, Serigne Mbaye ngi nii. ngi nii. ñoom ñëpp ay nitu yoo xam ne koo ci àndal rek am nga kóllëre. ñoom ñëpp ay nit lañ yoo xam ne koo ci àndal rek am nga kóllëre. ndax du la sànq mukk. ndax du la sànq mukk. ndax du la sànni mukk. ndax du la sànni mukk. ci lay jëm. ci ci lay womat. ci ci lay ànd ak yow. ci lay te dara mënta passé foofu. dara mënta passé foofu. yal nañu ko yàlla may. yal nañu yàlla may. yal nañu yàlla taxaw. yal nañu yàlla ñu lay ndokkeel. Cheikh Mahi xalifa bi ne ñu lay ndokkeel. ak yow ak seeni rek yow ak say rak. ñu ngi ñu ngi a ah, ni nga ko waxee rek la. ne comme ni nga ko waxee rek la. benn Médina rek la. benn Médina rek la. benn kaddu la. benn kaddu rek la. benn kàddu moo mun a tabax. benn kàddu moo mën tabax. waaye bu kàddu yu bëree rek tabax yàqu. waaye bu kaddu yu bëree tabax yàqu. te dañoo bëgg a tabax. te dañoo bëgg a tabax. bëgg a yokk. dañoo bëgg a yokk yal na ñu yàlla may. yal na ñu yokk suñuy tabax. ñu yokk suñuy tabax. yal na ñu yàlla may. yal ñu yàlla may. ñu dolleeku. ñu dolleeku. ci zaahir. ci zaahir. ak ci baatin. ak ci baatin. yal na ñu yàlla yëkkati. yal na ñu yàlla yëkkati. te suufeel. te suufeel. yal na ñu yàlla xamal. yal na ñu réeral. te ñu yàlla yombalal. yal na ñu yàlla yombalal. ba duñ soxlaal kenn. ba duñ soxlaal kenn. ba duñ soxlaal kenn ba duñ soxlaal kenn ku dul yàlla ku dul yàlla dellu ci yàlla dellu ci yàlla yàlla nañu yàlla dëgëral yàlla yàlla nañu yàlla dëgëral. yàlla nañu yàlla dëgëral. te yàlla nañu dëgëralee foofa. nañuy dëgëralee foofa. gërëm mbokk yu tedd yi teew fii yëpp. gis nañ mbokk yu tedd yi toog fii yëpp. ñu ngi gërëm mbokk yu tedd yi toog fii yëpp. ñu ngi ngi nii léegi la agsi. Ahmad Khalifa naa tukki mu son mu métti la. sëriñ bi na ne tukki mu métti la. jógee ba fii ci waxtu wi. jógee Dakar ba fii ci waxtu wi. bu la ko jaralu toon doo ko def. bu la ko jaralu toon doo ko def ndax boo bu jaralutoon ne liggéey rek moo war ndax bu jaralutoon ne liggéey rek moo war def lu baax rek moo war def lu baax rek moo war mënoon ngaa am foofa kon mënoon ngaa am Dakar waaye toog nga waaye yaa ngi nii toog nga gannaaw yow mu sori moomu gannaaw yow mu sori moomu yaa nekk tey yaa nekk tey rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo jege rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo jege ñëpp a nii Lamine ngi nii Asubo ngi nii. sëñ Makke ngi nii. sëñ Makke ngi nii. ñoom ñëw nañ. ñëpp ñëw nañ. ñëw ngir dañ leen di jaale si. ñëwul ngir dañ leen jaale si. waaye dañoo ñëw parce que ñun la. ñëwul ngir. parce ñëw ñëw ngir parce ñun la. ndax ñun la rek. ndax ñun la rek. Mérina la. Mérina la. Kër Madiabel la. Kër ma. Kër la. Abdoulaye Niass la. la. ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm itam. mbokk yi ba ñuy gën a ak Mauritanie ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñëw nañ ñëw ngir won nañu benn rek la ngir won ñu ne benn rek la liggéey rek moo am liggéey rek liggéey ci yàlla liggéey ci sa diine liggéey ci sa diine liggéey ci sa àddina liggéey ci sa àddina ba nekk xeet woo xam ne ba nekk xeet woo xam ne. xeet wu dëgër nga. xeet wu dëgër la. xeet wu am nga. xeet wu am la. xeet wu doylu la. xeet wu doylu nga. yal na ñu yàlla dimbale. yal na ñu yàlla dimbale. yal na yàlla yëkkati Sénégal. yal na yàlla yëkkati Sénégal. ci loxoy ay doomi Sénégal. ci loxol ay doomi Sénégal. yal na yàlla xamal Sénégal. yal na yàlla xamal Sénégal. ci doomi Sénégal. ci doomi Sénégal. yal na yàlla amal Sénégal. yal na yàlla amal Sénégal. ci doomi ay Sénégal. ci doomi ay Sénégal. yal na ñu yàlla musal. yal na ñu yàlla musal. ci musiba musiba musiba feebar bi nga xam ne ci musiba feebar bii kaw ci jamono nga xam ne tiital na tiital na ñëpp tiital na ñëpp yàlla waaye yàlla borom yërmande la borom yërmande la borom ñëweti la ñëweti la nekk ak ñun yàlla nekk ak ñun yërmande yërmandeem ak ñëweteem ak yàlla ñu soxlaal moom yàlla ngir bañ fi tiitee feebar beek ngir ñu bañ a tiitee ci feebar beek di daw di dawak ndax kenn mën taraw yàlla kenn mën taraw yàlla kenn yàlla yàlla nekk nekk ak ñun ci gërëm tànk yi fi ñëw yëpp di gërëm tànk yi fi ñëw yëpp bàyyeekoo fu nekk bàyyeekoo fu nekk monsieur ngi bàyyeekoo monsieur bàyyeekoo Mauritanie El Hadj Bichiré ngi nii bàyyeekoo Mauritanie ak ak ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ jógee fu nekk jógee fu nekk nañ xam ne loolu. nañ xam ne loolu. benn jiil boo xam ne. benn. jiil. benn jiil boo xam ne la. ñoo fi jiitu. ñoo jiitu. bëgg tabax. bëgg a tabax. seen tabax yëkkatiku. seen tabax yëkkatiku. addina bi yëpp wuy si leen. addina bi yëpp wuy si leen. mooy suñu responsabilité. mooy suñu responsabilité mooy ñuy nekkee ñoom. ni ñuy nekkee ñoom. ni ñuy àndee ñoom. loolu rek la. loolu rek la yal nañu ci yàlla dimbale. yal ñu yoon woo xam ne moo gën a jub. won ñu yoon woo xam ne moo gën a jub. ihdina siraatal mustaqima yal nañu yàlla teg foofu. ihdina siraatal mustaqima yal nañu yàlla teg foofu. bijaahi rasulillah. bijaahi rasulillah sallallahu wa sallam. wax nañ ñu ne ewi nañ buñ paree ci lii ewi nañ ñëpp. sëriñ bi nag bu ñu lencee ba pare ewi nañ ku nekk mën ngaa dem ci sa ay soxla. ku nekk mën ngaa dem ci sa ay soxla. yal nañu yàlla sàmm. yal nañu yàlla yàlla nangul. yal nañu euh, dellu ci jàmm. sëriñ bi ne gannaaw buñ dencee ba pare ñëpp nañ dellu ci jàmm. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla bindal ay tànk yiw. yal na yàlla bindal leen ay